aja sëñ bi nuyu nañ la. waaye fay nañ la maa ngi si jàmm. naa tudd. Serigne Ismaïla Kab étudiant en communication et journalisme licence 3 INSIP Afrique. Serigne Ismaïla tey ñi fekk la fii Soumbédioune ngay fii daan sa doole ñu bëggoon xam ci koor bi nga xamante ne nii ñu ngi ko fi wax naan ndox mi moo ko sànni est-ce que mën nga ci ñëw ñëwal ci ay version yu gën a leer. ok démb nag euh, vers 17h 18h. Eh, dañoo seetlu ne amoon na benn lu doon feeñ ci biir ndox mi mais puisque fii nii ay magu moon ñoo fi nekk et eh, probablement ñu ne woon euh, nit la bu dee euh, mu mu moom loolu la ñuy wax mu tëmb dafa tëmb loolu bi mu amee euh, à peine vingt minutes gis nañ les sapeurs pompiers ñu ñëw yàgg nañ fa trop nag. ma personnellement fii nii ñi nekkoon ci quai bi amul kenn koo xamante ni mën na laa wax ne c'est un témoin oculaire ou auriculaire boo xamante ni dem na gis le corps mais on a vu que sapeurs-pompiers yi ñëw nañ s'affairer autour d'une de quelque chose xam nañ nag est-ce que nit la wala déet loolu moom démb am na fi man mii di wax ak yow. relayé naa ko jox ko benn euh, correspondante RFI Charlotte Hydrate ne ko am na benn corps bu flotté au niveau au niveau du quai de Soumbédioune vous comprenez loolu moo fi am démb euh, gis nañ aussi euh, sapeur pompier demoon nañ ba autour de ci wetu xeer yi côté cimetière bi mais xamuñu exactement lañ lañ fa doon def très franchement Euh, waaw dañ leen a gis ñu taxaw ak seeni gilet les sapeurs pompier mhm. sapeur pompier ñoo ko fa jëlee moom li fi nekkoon di feeñ xamuñu nit la xamuñu lan la mais sapeur pompier ñoo ko fa jële oh, waaye y a quelque chose là-bas qui flottait au niveau de kii la.